ange billahi mina sheytaani rajim barke borom Touba kon mbok yi ñoo ngi ñëw di leen présenter seen émission yewi yewi comme niñ ko tàmm di défé sa suné tay tey ñoo ngi ñëw fii fekk ci soxna su nga xamné ne ñu ngi koy woowee jigéen ju man gor comme niñ ko défé ci semaine yi ñu weesu yépp comme ni ngeen ko xamé niñ ko tàmm di défé moy di fekki responsable yi chef d'entreprise yi président d'association yi ngir ñu siq ñom ñoom waxtaan ci seen émission yewi yewi tay ñoo ngi ñëw fii ci daru Minam ñu ngi fi fekk ci soxna Astou Boury mu nekk responsable politique ci aper ñu nar a ak mom séq ak mom waxtan wu yaatoo yaatu ba kep ku doon dégg soxna Astou Boury nga xam kan moy soxna Astou Boury kon duñ leuf lu dox ko kàddu gi mu présenté wu. ma ngi nuyo bu baax di leen ziar di leen euh, sant bu baax a baax ci seen tànk yi ngeen jóg waaw. Ah, jërëjëf soxna Astou Boury ndax mën nañoo xam kan mooy soxna Astou waaw soxna Astou Boury Mbacké moom mooy bàyyi faalub daaru minam rek liggéeyal Serigne Touba ñor ma rek tey jàppale askan wi ñor ma kooku mooy soxna Astou Boury Mbacké. ñuy wax docteur Cheikh mhm. waral boobu choix. ah choix bi de xam naa nag moom balaa dara balaa ma cee wax dara sax dama ciy jiital dogalu suñ borom ndax wax dëgg yàlla. mësumaa am envie dugg APR wax dëgg fa yàlla ndax man bi ma nee bëreet rek dama dugg ci parti réew maa ko choisir sama bopp wax dëgg yàlla dugg ci di ci liggéey bu baax ni ma ci war a liggéeyee ndax man lépp lu may dugg ngëm-ngëm laa koy duggee moom nag xam naa suñu ànd ma moom li mu waxoon rek moo ci am ndax keroog bi mu ñëwee fii seet si ma nee na sama digganteeg soxna Astou Boury Mbacké xam naa mbiri baatin da cee rax mais man duma ko weddi ndax lutax mu mën ma ñëw rek récupérer nonu mu yomb té ku ne jaar fi te mënuñu ko lolu mom dama koy fétalé ci mbiru suñ borom mais du sama choix man yaakar na né du choix am mais lu suñ borom dogal la. Mhm. euh jërëjëf euh, soxna su bu di gis nañ ne bi nga défé centre politique ba li gis nañ ne que sa yëngu mi ngi jëm ci walu social. Mhm. lu jëm ci walu adoption d'eau. Mhm. ñu gis euh, li suñ borom wax ci ndox. ngëna li si nekk. ñu bëggoon a xam tamit euh, lan mo wara fi soxna su buri mbàkkee taamu adoption d'eau. waa li tax ma taamu ko de xam naa li ci jiitu nag mooy doon jigéen rek te xam li ndox di jariñ ci jigéen xam nga ndox sëñ bi ñun mënuñoo xëy te fóotuñu mënuñoo xëy te sanguwuñu ba set defaru mënuñoo xëy te minaa suñu suñ kër wala ñu xëy te sanguñu suñuy gone wala ñu xëy te togguñu ñaareel bayit sëñ bi ndox moom ku ko ñàkk nooy selle nan ngay jàppe nooy sangoo nooy jullee sëñ bi man bu may wër di eh, def tournée ci gox-goxaan yi sama yaram bi day daw ndax da ngay xëy sax gis gone goo xam ne du sangu danaa ñàgg tilim boo leen àkkee ne leen seen xale yi lu tax ñu tilim ñooy la dañoo amatu ndox bu boobaa du ma bëgg lu dul fipp rek am doole joo xam ne damay jox ñëppum ndox rek ba mu doy mën na maa ñàkk mën na maa supporter sax courant bu coupé mais mënu maa supporter ñàkkum ndox loolu rek moo tax toujours sama sociale di gën a jëm ci ndox waaw foofu ci wàllum social bi ñu bëri ñi ngi wax na docteur Cheikh Kanté moo koy jox li muy defee addiction bi loo mën a wax ci loolu ah loolu de li ma ci mën a wax xanaa ma def samay addition te Idrissa Seck joxuma ko ndax mosuma séq ak moom mu jox ma ñaar téeméer sama loxo dama àndoon ak moom rek ci gëm-gëm wax def naa ko ñetti yoon doog a dugg bi ci njëkk maa ngi ko defee ca Umul Xuraa investir naa ci quatre cent euh, cinq cent cinquante mille bi ci toppaat maa ngi ko defee ca mbusoo bi investir naa ci quatre cent mille francs bi nga xam ne moo ci toppaat di troisième fois bi nga xam ne ci la njëkk a commencé di médiatiser samay affaire boobu maa ngi ko defee ci daaru Minam deux ca kaw booba it investir naa ci sept cent mille lu ci nekk sama ñaq bopp lay ñaq am ci yéene dem def ko fa àddiyee Serigne Touba ngir liggéey ci dëkk bi kon loolu wax dëgg yàlla ginnaaw bi ma duggee APR ak léegi defaat naa fi yeneen ñaari addition d'eau benn bi man def ci caaween ndikku investir naa ci 1 million bu manqué mille francs bi ci toppaat mooy bi ma doon immigré ji bërki démb ci ngoon boobu investir naa ci 800000 yu teg ci moom itam ca boori guy ñànk kon wax dëgg yàlla euh, bi avant may dugg APR fekkoon na may def samay yëngu di liggéey di jàppale askan wi waaw kon nag wax dëgg fa yàlla bëgg naa mu leer leen ne leen loolu may defee addition doo yi vraiment état joxuma ko bu ma ci jàppale woon ma jël. wax dëgg yàlla seexkante yi joxuma ko nag loolu sama ñaq bopp la man maa koy def addiyeey Serigne Touba. xarit seen càmmiñ. Ndongo mhm. Ndiaye organisé fi meeting bu nga xam ne kenn xaru ko woon. Mhm. ci côté mobilisation mais gis nañ lu fa xew lu nga xam ne que ñi nga xam ne que ay pro APR lañ métti na leen trop. Mhm. ñu dégg la barki dem ci génn bi nga mujj a génn nga ci nga koy naqarlu di gën a fetliwaat kàddu yi ministre Omar yi mu waxoon. loolu yow en tant que responsable ci biir département de Mbacké noo mën a jàngate acte yu mel noonu. ii sëñ bi jaaxle rek yow damay nekk di ci wëlbatiku di ci xalaat ndax man soxna Astou Boury Mbacké maa bëggul problème bëgguma ñànk ñàkk a mànkoo bëgguma ñàkk juboo saa ma fee maal dafa maa jaxase fan yi wax dëgg yàlla damay ñaan nag wax dëgg yàlla képp kuy jullit te nekk APR nga bësanteeg sa xol ñu àndandoo ñu ñëpp bennoo ndax comme ni ma koy waxee rek wax dëgg yàlla bennoo rek moo mën a mayee doole union fait la force comme ni ñu koy waxee man dama bëgg ñëpp bennoo ñëpp àndandoo ndax feek defuñu ko ndam danañu jafe xanaa yàlla dimbali ñu dëgg fee nag la fa xew wax dëgg yàlla euh, ministre Ndonga Ndiaye li mu def bu ko ñëpp doon def kon day neex te day baax wax dëgg yàlla donte sax comme ni ko rumeur yi dawee daf koo def ngir boppam waaye defu ko ngir parti bi donte sax daf koy def ngir boppam li gën mooy nit ki saabu bu soxtaa soxlaa daraja dolli ko daraja bu soxlaa daraja da nga koy dolli daraja mais bul cor tànkam bul ko yàq bu reculé wu déedéet man li ma bëgg man soxnaa Soubry Mbacké man de man wax dëgg yàlla damaa tàllal ñëpp loxo te man soxnaa Soubry Mbacké képp lu ku bëgg lu baax man soxnaa Soubry Mbacké du ma la sama daraja man su ma képp koo xam ne dangaa jóg taxaw bëgg boole bëgg lu baax man duma la iñaane sama daraja ne ñëpp nag daf doxali noonu ndax bu ñu doxalee noonu rek bennoo day am manko am waaye bu dee ku nekk da ngay iñaane sa morom daraja bennoo du am manko du am wax dëgg yàlla te loolu nag du sagub Touba sëñ bi nga baal ma. gis nañ ne yéen a ngi waaj ay élection législative muy palum député mhm. mhm. coow lu bëri na lool ci biir département bi. Mhm. ku nekk xëy na ñii ñooy nekk ci liste départementale bu Mbacké. coow ak kuréel yooyu naka ngeen a duggee ci biir élection élection yooyu. ah xanaa góorgóorlu rek nag sëñ bi ndax moom coow li sax dafa mayewut dara coow li lu mu yàqul du ko defar. man daal li ma bëgg mooy kenn ku ne gëm sa bopp dugg ci terrain bi liggéey fa yéenee jàppale président Macky Sall te man sax xam nga lu ma jaaxal sëñ bi toujours damay tëdd di ci xalaat lan moo tax képp koo xam ne dangaa bokk ci dara ñu fal la ku fi bokk ci parti ñu fal la loolu daf ma jaaxal bi may xale ba léegi daf may yàgg jaaxal ma ciy questionné doom aadama yi ku ci am ab leeral ba ma mën a leeral nga jàppale ma ci man soxna su parce que dama seetlu képp koo xam danga nekk ci parti ñu jël la muy sa sens ñu fal la dara. lu tax saa bu ñu la follee rek nga wëlbatiku contre loolu mooy li nga xam ne daf ma jaaxal bi ma nekkee xale ba léegi te loolu dafay yàgg dan moo waral loolu dafa ma xaw a jaaxal may ñaan nag képp koo xam ne danga kee am leeral ndax mbir moo gis sëñ bi wax dëgg yàlla sa sens day ñëw nga falu sensu keneen ñëw nga folleeku kooka falu mais bu mu tax toujours ku folleeku contre loolu mooy li nga xam ne man soxna Asuburi Mbàkke dafa ma mës a jaaxal ma di ko laaj man day gëm naa yàlla ba nga xam ne su ma falu woon bu may folleeku damay ànd ak mbégte ak jàmm ak yéene ko ko nga xam ne moo may remplacer man loolu laa gis si loolu ñun ñëpp nag wax dëgg yàlla lay suñu euh, euh, lay suñu ndam mooy ñu booloo rek te viser élection yi kenn ku ne wàcc ci terrain bi liggéey moo gën coow li man loolu laay conseil nit ñi. Euh, yooyu gis nañ ne que mooy coow li bëri na trop. Mhm. gis ne ñi nga xam na que ñoo àndoon ak yéen. Mhm. bi ngeen di laaj réew mi. Mhm. seen coalition. ñu ci bëri fi ñu ngi ci loxol justice. ñu mën cee lim ku mel ne Abdoul Mbaye. ñu mën cee tudd ku mel ne Khalifa Sall bi nga xam ci parti socialiste boo bokk ci benn bokk yaakaar. ku ñu mel ku ñuy wax Barthélémy Dias. coow li bëri trop. en tant que responsable d'APR naka nga a résumer coow loolu. xam nga nu ko mën a résumer. ñëpp ànd dal. gis nga mbir bu dee dafa am tàkk-tàkk bu fekkee da ngay jëlaat ay matt di ca xamb mais day gën a tàkk mais bu fekkente ni problème dafa am ñëpp di ca wax jàmm di seetlu résoudre problème boobu kon dana mën a réglé wu te coow du jib waaye nag vraiment bu fekkee problème dafa am ña nga ñi koy réglé ña nga ca di réglé te xamuñu fu mbir jëm nga wëlbatiku di ca wax wax yu ñaaw di ca xambu di ca duggee domaine boo xam ne c'est pas normal mais du arrêté wu xool leen kaawu Barthélémy Dias barki démb ci télévision bi taxaw di yekk Macky Sall lu mel ne xeme mais loolu fan la ko teg xamadi rek moom mu ngi wax Macky Sall dafa soxor mais moom dafa xamadi te réew parce que bëgg na man dama mënul comprendre euh, ku maanaam ku fi toog nga attaqué ko président bu fi toog nga attaqué ko président bu fi toog nga xañ ko jàmm moom nag dafa xamul mais président Macky Sall ba ko président ab Ablaye Wade tëjee mais bi mu toogee lim njëkk a def mooy tijji ko kon kooku jàmm la bëgg mais bu fekkente ne da sax sax béjjëni biir sax béjjëni dënn kooku doo neex a boot moo tax président Macky Sall teel ko ni cëpp ku mel ne moom nag bu ko ñëpp dee déglu wala ñu di ko roy wax dëgg yàlla jàmm du am ci réew mi parce que moom dafa mel ni bëggul jàmm te du dox ci jàmm ndax affaire bi bi mu xewee bu ñëpp àndandoo woon ne tekk wax ci jàmm di ci dox jàmm yaakaar naa dina sedd fu mu yegg nag fu problème wu Khalifa Sall egg rek nit ñee ko fa eggale

nag ban message nga leen di jox ngir ngeen mën a jàmmarloo ak menace boobu xam ne mi ngi ci terrain menace boobu ku xamul moo ciy jaaxle mais loo xam ni foofu mobilisation am fa xam nga lu am dajale mbooloom ca àll ba indi leen wàcc leen Touba mais mbooloo moom amu ko biir Touba. que ça soit clair faut ngeen bàyyi loolu xel kon ñun waa Touba mbooloo moom fi Aïda Mbodj indi ñun tiitaluñu jaaxaluñu man daal li nga xam ne moo intéressé te ma gëm ko mooy képp ku bokk APR bàyyi lépp loo jàppal sa morom nga jóg wàcc ci terrain bi fa yéenee liggéey loo xam ne bu ëllëgatee ñun danañ am ndam loolu daal mooy li nga xam ne mooy message bi nga xam ne moom laay euh, wax dëgg yàlla jox doomu aadama yi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon topp seen émission yeewu yeewu fii ci mourides point info comme ni ngeen ko gisee ñi nga àndoon ak soxna Astou Boury Mbacké responsable APR fii ci Touba kon ñoo ngi leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen